ne bëgg nañu kaa waxtaanee ñeel li nga xamante ne nag moom moo di ndëpp bi ñu woote ngir daal di jéem a xool ana lan la ñuy jojjanti ci li nga xamante ne moom moo di ëttub attekaay bi tey ma daal fi fiy dalal Alioune Sow nekk juriste de profession en même temps directeur de publication la Mandat yéen a ngi ci seen émission valise diplomatique mais monsieur saw sànq dafa am foo xamante ne da fa dugg procès ko tuuti génnaat mooy par rapport ak ay révélation yi nga xamante ne moom Tunkara nekk fële nga xamante ne moom moo di ca États-Unis moo toog defal boppam ay révélation daal di ne daana participer ci li nga xamante ne moom moo di cocktail molotov yi dem sax ba ni daana ko financé di ñaan clémence yàlla suñu borom yàlla na ko jéggal ci doomu aadama yi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan ak justice bi réforme yi nga xamante ne ñu ngi ko ciy sàkku tey lan nga ci war a mën a xaar ci kaaw ki nga xamante ne moom moo di Tunkara man ruus ñu mel ni toujours xam nga Tunkara wax koo xam ne dafa am gis-gisu àdduna euh, mm-hmm. boppam euh, am ku mu faral wax dëgg yàlla fës ci lool am ay attitudes yu mu doon am je pense que ni Assane Diouf ak ñoom Françoise Hélène Faye Hélène euh, Gaye ñoom ñoo ko ñoo ko wane mm-hmm. mu doon ku xare koo xam ne doon joxe xalaatam ci réew mi doon doomu Sénégal mm-hmm. ah, yàlla def ni muy far di far ba gars yi ñëw ci nguur gi waaye ci biir far boobu moom dafa am façon doxalin bu mu daan am ci façon doxalin yooyu nag la avoué yenn yenn yenn détails yi. Mhm. qui ne sont pas des petits détails mais des gros détails. Mhm. tels que ay cocktail molotov yu mu doon jël euh, ay ay xaalis mu doon jël pour jox ay nit. pour jàppaleen pour ñu bokk ci komba bi pour la destruction du du du système rien que par rapport à lim à au matériel et à l'immatériel mm-hmm. yaa ngi dégg ak ñu demee noonu ba ci ay cocktail Molotov yoo xam ne moo ko génnee ci gémmiñam mm-hmm. yaa ngi dégg euh, mënoon na yam ci rek ni dama doon xeexal réew mi daan dugal sama alal ci réew mi di yónni Sénégal pour ñu xeex contre le régime de Macky Sall ndax mu jóge fi mm-hmm. mënoon na yam foofu rek mais dafa dugg ci ay détails am na ay nit sax ay turan nee na leen man dama doon dama leen doon yónnee xaalis pour ñu euh, defar ay cocktail molotov il fallait ñu taal réew mi pour mag Sall jóge fi parce que jaraloon na lu nekk ba man loolu man du ma nekk un ancien opposant tey ma nekk président de la république ma war a wane ni man bi ma nekk opposant loolu man xaw non seulement yëguma ko mais musuma ci d'accord kii wax bi mu wax c'est grave parce que kii dafa naroon retourné ci ñu république te bu ko retourné woon ñun duñ fi nekk wala xëy na peut-être armée mooy téye nguur gi mm-hmm. kon man président de la république donte kii faraloon na ma comme dama bëgg euh, justice ci réew mi. Mhm. man dinaa wax États-Unis mhm. pour ñu dem jëlali ma ko mu expliquer ñu lan lan lu tax mu def loolu bu dee moom moo ko def ndax dina ko avoué waat parce que peut-être mënoon nga ko indi aussi mu ne non dama doon kaf rek mosuma ko def. mënoon mhm. na wax loolu te boobaa tamit kenn mënu si dara. kon su ma la déggee bu baax da nga jàpp ne ab mandat d'arrêt international lañu war a discerner kii di kii di Tunkara. ba mënoon nañu poser wu question boobu man xamuma parce que ku jéggalu. wax dëgg yàlla bon man ku jéggalu baal naa ko. Mhm. man Tunkara yàkk na ma lu nekk. yow mi waaw man Tunkara yàq na ma nee man góor jigéen la. mais por porté ma ko plainte. billaahi wallaahi mhm. moo tax bi ngay wax sànq man bëgguma woon dugg ci sama kaawu bopp man bi ngay wax sànq ci Bah li mu wax. Mhm. man bëgguma woon dugg ci sama kaa mais nee na man man góor jigéen la. ba mu ko na ma. mais après dama muñ dama muñ mu metti ma trop parce que xam nga lu tax parce que benn man ku bëgg jigéen laa waaye du ma wëyu du ma wëyu te duma ma taxawaalu kat mm. est-ce que Alioune Sow mosoon ngeen ko gis ak jigéen ministre lay àndal di dem di tëddanteeg ñoom moom Tunkara mii wallaahi loolu la wax mm. te pourtant man musuma wax lu ñaaw ci moom parce que xamuma ko pour man dafay politique rek moo tax mu am yenn attitude yi mm-hmm. waaye bi ma waxee loolu man te boobu du bu njëkk sax. Hmm. avant loolu am na leneen lu ma njëkkoon accusé. mooy lan lu lu lu doy waar loo xam ne euh, nee na benn xaritam moo ko wax. Euh, ni man euh, lëfin bu tuuti laa am. <laughs> benn xaritam moo ko ko wax. wallaahi moo ko ko wax quoi Aliou du du góor. waa ki nga du góor quoi du góor. waaw hmm. copine bi mu amoon sax mënalu ko woon dara. <laughs> benn xaritu xaritam moom moo wax loolu. est yaa ngi dégg wax yooyu. c'est tellement su ma ko wax sax ba regretter ko est que Tunkara loolu moo waxoon regretter ko ci man. Mm-hmm. parce que Tunkara xamuluma dara mais pourtant loolu la wax nee na man góor jigéen laa mooy doon deuxième couche bi mu dóor ci man quelques mois après bu njëkk bi mooy bi ma la wax noonu rus naa sax dugg ci ay détails mu ne dañ ko ko wax quoi moom benn xaritam moo ko ko wax mu wóor ma ni sama loxo ci kaamil ni du dëgg du ma wuyu nag te du ma kuy la xëy na du loolu laa tàmm ndax sama sama yareen la euh, waaw du ma nit di xanaa ma bëgg la moo la bëggee xëy na waaw mais bu fekkee ne bëgguma la wala yooyu du may nekk di wër nii du ma nit buy wërantu ay jigéen c'est impossible loolu loolu du lu ma bañ mais du lu ma tàmm aussi. yaa ngi dégg kon bu waxee loolu man métti woon na ma trop mais mosuma ci wax tey ñi nga dañ ne sax moo tax ma wax ci. ñu demaat beneen jour mu ñëw waxaat ci télé Alioune Sow moom bàyyi leen ko fële moom góor jigéen est mos ngeen gis ak Alioune Sow jigéen wax na dëgg nag foofu parce que man du nit buy taxawaalu ak ay jigéen lu ma bu ma ko def rek mooy kooku xamal ne dama koy takk. Mhm. Euh, du ma nit buy taxawaalu ak jigéen man lan laa ci war a mën a déggee Alioune Sow dafa am soxna am ay doom wala. Mhm. mais moi je suis marié depuis vingt ñaata. Mhm. depuis may dégg nga naan du ma nit buy taxawaalu ak ay jigéen. non xamalu tax. parce que mhm. parce que parce que bu bés bu ko gisee rek xamal ne seetlu leen ma ak kooku. xëñ na euh, alxayri mos nañ si topp. mais tuuma bi ba mu la ko tuumaalee en tant que père de ak say doom. mais mais mais waxuma dara mais xam sama samay waajur ñu ngi tugal. Mhm. si sama waajur bu jigéen sama waajur bu mhm. de décembre fin décembre mhm. mais mais mais sama samay waajur bu jigéen bon man je suis parti en France. def na ay léegi ñetta def na léegi 38 ans. boobu xale xale laa dem fekk samay waajur. Mhm. donc France la màggee euh, jàng fa après à un moment donné ma am envie ñëw Sénégal defal dara sama réew. Mhm. yaa ngi dégg te bi may <laughs> bi may wax dëgg yàlla am na sax ñoo xam ne kontaan nañu ci bi may def loolu. Mhm. ndax dañ ma ne lu tax ngay bàyyi sa teraanga fii machin say waajur sax mun na la ci xas mais yooyu affaire de famille la wala sa jabar ne la waaye euh, ak yooyu dama xaw a mer parce que man sama jabar allemande la. te te wax dëgg yàlla samay doom sénégalais gis nañ leen fépp fu may dem. c'est une allemande. c'est une allemande une allemande du nord de l'Allemagne. mu ngi fii Sénégal ak yow non mi ngi France. mu ngi France waaw ah. moom tamit ba mu déggee loolu ak say doom. ñu dem oui xam nga dañu leen di traduire est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit à ton mari. Mhm. xam nga sa yaay fii lire commentaire yi lii lii est-ce que jar na ko est-ce que jar na nga def effort yi yëpp man man man bi ma ñëwee di commencer wax si Coumba Gawlo laa commencer di wax man maa njëkk bokk si njëkk di def euh, émission les grandes gueules. Mhm. bokk naa si ñu ko njëkk a def. dañ ko def hmm. six mois xaw ma wala yooyu man ma ñëw. Hmm. def naa fa un an de demi tous les matins man maa doon def chronique de l' actualité sur les grandes gueules. Hmm. une partie en wolof international seen patron bi xam na li xew. effectivement tey li nga xamante ne lépp nag kooku ngeen koy laaj tuuti. Euh, man li ma doon. effectivement mu ngi noonu DG mu nekk ko gën sax macha allah. tey ki nga xamante ne moom moo di moom Tunkara kon tey souhaité nga li nga xamante ne moom moo di mandat d'arrêt international dal ci kawam. xam nga parce que aussi mën na juum quoi bu demee bay xalaat yàlla. Mm-hmm. xam nga bi mu waxee ba pare nee na mi ngi ñaan yàlla baal ko ci li mu def. Mm-hmm. ba ma xam ne xëy na peut-être gëm na yàlla ko mais euh, euh, euh, il est à moitié pardonné mm-hmm. di tubaab di wax faute avouée est à moitié pardonnée moi je crois que euh, man moom personnellement man man baal naa ko. et peut-être que du nit ku bon. peut-être. nit yu baax ñi. ce n'est pas ceux qui ont des grandes gueules en mm-hmm. ku baax lu ku kuy kuy yuuxu Binta. Euh, di mm-hmm. wax wala euh, assassin. Mm-hmm. nit mun na ñëw rey nit ñi fii sa mbokk ni fekk mu doon nit ku baax. est-ce xam nga loolu. nit laa wax ñëw sa mbokk mu rendi ku tëral rendi. fekk nit ku baax la yàlla ci yàlla mais loolu mun na nekk Binta. nit mun na ko def fekk mu doon ku baax. nit mun na taxaw musulaa def dara lu ñaaw fekk nit ku bon la. yéeneem yéeneem ci yow rek c'est même la peine xëy na dafa amul courage yegg ci yenn yi waaye xolam li mu mel ci yow kooku bu ko doon génnee di ko wane nii nga koy teg sa bët kon dangay jommi ci àdduna. d'après révélation yi nga xamante ni def na ko ministre bi yoroon wàllum kaaraange biir réew mi di Antoine Félix Ndiome dafa defoon ay révélation que ni. Hmm. y a des au Sénégal. j'étais là par rapport ak cocktail molotov bi nga xamante ne sànni nañ ko ci bus bu yaraax bi ba ñaari doomu aadama ñàkk ci seen bakkan. est-ce hmm. que joxul raison Antoine man dama xaw ruus quoi dama ruus boole ci benn espèce su yërmande boole ci espèce su xam nga kii sentiment d'amertume parce que quand je pense à ces petites filles la y en a une qui avait sept ans l'autre avait dix-neuf ans mhm. xam nga maa ngi xalaat la famille jàlloo seen ndey ak seen baay yi dëkk fii Medina mhm. ils ont perdu yaa ngi imaginer takk tàkk ak safara ci biir euh, bus ci biir bus mhm. su ma si xoolee loolu sama xool bi dafay jaar tàkk yaa ngi imaginer tàkk-tàkk. ñu jël nit dugal la ci fuur quoi. lu ngay tàkk mënoo génn quoi. lu metti la. Mm, xëy na peut-être loolu moom xëy na lool la xool. ba xëy na muy jégalu yàlla mais man sama xel day nekk ci. espérons que justice dina def liggéeyam. ah espérons que justice dina def liggéeyam. est-ce que justice dina def liggéeyam man joxe naa ci sama xalaat yàgg na quoi est-ce que parce que ku dem def ba wax amnistie kay. Mhm. mooy mbir mi jeex na xam man loi d'amnistie biñ koy biñ ciy wax temps yële yëpp. Mhm. avant Macky Sall di jóge ci nguur gi. moi j'avais dit que décision là. Mhm. léegi j'étais un parce que dama ne xëy na Macky Sall bu fi jógee euh, voilà dama waxoon xëy na Macky Sall bu fi jógee dina dina kii nu mu tudd. bu fi jógee dina ñi ñi parce que ñoom dañ ko doon wax dañ ne woon d'accord wuñu ak cette loi d'amnistie la mm-hmm. xam nga moo tax nguur gi li nekk seen kaw dafa diis mm-hmm. ndax dafa am ay promesses yu ñu defoon ci wàllum góor jigéen yi en dernier mais ci surtout ci wàllum loi d'amnistie bi dañu waxoon ni ñoom ànduñu si mm-hmm. ànduñu si ci amnistie bi dañu bëgg que la vérité jaillisse mais une fois que xalaatoo ni tey législature bi daal di jeexal ñu tas assemblée bi dem ci ay élections su boobaa mën nañaa criminaliser li nga xamante ne moom moo di góor jigéen anéantir loi d'amnistie bi njortuloo ko. mais man gëw ma ko xam lu tax parce que sinon danañ ko annoncé au moins nga annoncer ko nga ne nga ne man comme man wax naa ko sax quoi bi mu ñëwee ak Mélenchon fii waxoon naa ko bi Mélenchon waxee waxam ba pare lim mu ko waroon tontu. Euh, c'était clair mooy Mélenchon ñun yamuñu sax ci ay euh, acte contre nature ak yooyu prévu ñun yamuñu foofu de. Mhm. je crois que c'est le 319 xaw ma du code mm. pénal man mm. waxuma ak tantôt yow Mélenchon yow Mélenchon yow xamoo li xew yow loolu ngay wax noonu yow seen réew la waaye ñun fii suñu réew ni ñun buñ ko mënoon euh, euh, criminaliser bu yàgg danañ ko def parce que soutenir nañu ay nit pour ñu criminaliser ko ñun bi ñu nekkee ci opposition bi waaye jàllul assemblée nationale léegi ñun kay li ñuy ñaan comme gagné nañu présidence de la république ñun ñoo yor nguur gi léegi mm. bés bu ñu yàlla dimbalee ba ñu am majorité à l' assemblée nationale yow Mélenchon dama bëgg nga xam ne ñun dañ koy criminaliser parce que loolu bokkoon na si suñu engagement mm-hmm. man loolu laa doon xaar ci tontu Ousmane Sonko mm-hmm. kon